Buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fooy mën a ne del ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam kan lañ fi dalal tey Cheikh Ahmadou Diop Koki ak i ndaam dama koy wax ni que boo ñaanee war ngaa ñaan ndax kuñ ne sa wajuru góor bàyyil na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké fukki dëkk ak ñaar mu yar ko tarbiyewu ko nga juddoo ci keppaar bu wax dëgg yàlla di borom xam-xam boo xam ni gaa ñi ràññee nañu ci bii promédia nag wax dëgg yàlla ndax say vidéo mu ngi fi jugul ci biir bii promédia ku mu neex dugal nga tàppee Cheikh Ahmadou Diop Koki lépp loo ma saf ci événement bu mën a doon yàlla sax borom daf koy dogal ci ni nga ko waxee woon newoon nga fi gisuma fu Ama Baldé mën a jaar ba Modou Lô ko daan ndax jaarin ku lekk jëgëm noonu nga waxee woon ñëwaat ci cadre booy ñëw ne ma mënul wax wax a wax ba daan Modou ndax li ko yàqal mu ci biir gën a jege newoon nga Ousmane Sonko génn ci kaso te xeeñ moom génn kaso Ousmane Sonko ma dem te ñëw newoon nga it Macky Sall nguur jeexagul ci loxo. wax gën a yëkkatu. bu combat bu doon tey. bu doon tey jii ya. Hmm. boo ñaa day féete suuf Modou Lo féete kaw. mais sëñ loolu lan la. waaw defal nag Modou Lo xam nga ne. mais moo taxul laaw. ah kay yaa gisul fu muy takki gisoo fu muy naane. te jafe-jafe bi nga xam ne maanaam li nga xam si am loo xam si bu ñu ko xasee ba liggéey sa biddiw jox la lu ñu sant biddiw ba def ay sara saraxam loola mooy continuer ba waxtu wa wan ko wan ko ba ci kii fi nekk njiitum réew di Macky sàll deuxième tour saafara sama mujj jëfandikoo man ci ñi ko bind ci laa bokk mm. daaw fen sama sama rakki bàyyi ko doon ñaanal mm. te moom bari na lu mu def ci man ci asaar mm. te Macky Sall bu leen jàpp ne jamono bii ñu toll nii nii nii nii maanaam moom nguur dañu gut ci loxoom yombul de jàkkaarloo non de dama lay wax damaa xam damaa xam damaa xam lañ ko lañ ko sampee xam lañ ko defal xam fan jaar ay mbiram xam fan ko teg asubillah bisimillah inna wàll yàlla buur maa ngi siyaar ñi seetaan si bi yëpp bi promédia di wax ne xëy na xaw nañ fee gëj fan yi mm-hmm. waaye liggéey moo nu jàttoon ndax gannaaw nit ñi day ñëw di ñu di seeni soxla dana waxtu yoo xam ne si nag faw dana tëju nekk ci seen itte ñoom mm-hmm. ba bu saafarawoo ñu mën a jëmaat ci yeneen itte doomu aadama mm-hmm. waaye ñi ngi siyaar ñi nga xam si ne ñoom ñëpp ñoo nekk ci bi promédia waaw buur nag loolu nga wax mu jëm ci li nga xam ne si ne mooy xeetu ay wax yoo xam ne waxoon nañ ko ci ginnaaw tañ te ñu àgg ca ñu gis ko nañ ko waxee. Mm-hmm. loola lépp ci cadre seet rek la. mën a seet ah, waaw waaw mën a seet ak mm-hmm. xam seet ak xam-xamu biddiw boo xam ne si ne. Mm-hmm. boo ci seetee dana la wóor na yow li gis nga. la nga xam si ne mooy am suba nga xam ne lii dina am nga wax ko bu dee ay sarax aaji na caa génne. nga nañ ca génne nañ ay sarax mm-hmm. ndax bi fi ndaw ñi di dugg ci gaal di di faatu mm-hmm. waxoon naa ko lu jiitu ñaari weer wax leen ne leen buñ ko mënee nañ génne sarax sàngam génne sarax sàngam mm-hmm. sarax yooyu xëy na maanaam nit ñi nga xam si ne ñoo ne ci nit ci nguur gi ak njiitum réew mi ba mu demee ba gis ne lool lu war la def na ko waaye itam nag dañoo fësul yéene ci sunu àdduna di wax loo xam ne si ne biir nañ ñu ngi koy wax waaye sunu bakkan rek moo tax ñu di ko fësuñu ko yéene ndax li ñuy wax lépp ci xam-xam koy teg li ñuy wax lépp dañ koy seet ba mu wóor nañu lii lu man la wala lu ñu gis la ñun la lii la ndax ñi nuy déglu kenn joxe luñ ci dépense. Mm. ba war a mën a tax ñu di la fen dëgg la kenn amul loonu ci jariñ lu munta ñàkk ba tax ñu jóg naan nit lii dina am te amut. waaye lépp loo xam ne si jël nañ micro ñu dëpp ñu caméra ñu wax ko. Mm. nanu xam ne yàgg yàgg danañ ci danañ ko gis te nan ko gisee woon noonu lay ame mm. waaw loolu nag moo tax mbir mii du mbir moo xam ne si ne dañ ciy làmmatu. loola wax naa ko waxati ko waxati ko xam-xam man duma ma aji ko ci làmbut ndax lu ma jàng la xam ko man ko donn ko seet nag moom yàllaa ma ci dimbali ndax damay wax ne seet du wax ne maa ko dàq ñépp waaye yàlla dimbali na ma képp ku ma seetal danga ma wax na ma sëñ bi ni nga ma gisee kenn musumaa gisee noonu mbir nag bu fekkente ne yaag ay nit yéen a koy defandoo bul ne maa ko dàq mm-hmm. ndax kulli aj gu ne kulli ajjante nga ca kawam mm-hmm. waaye nag man de wóor na ma ne billaahi wallaahi wa wàllum seet ak ñaan yàlla du ma taxaw mukk bis pénc ba nit takkal ma ci ak buum na ma yor nga ma ci àq sàngam te muy dëgg. mais sëñ man yow xeetu vidéo nga gën a xam. waaw man ci yow laa xamee ay mustareex. waaw ci yow laa xamee ay mixreex. waaw. ci yow laa xamee waxtu. ci mën ko calculer. ba xam tabiya nit ki ba xam bi ci gën kër lay fanaan. ci ban bayti la nekk. ci bayti maalam. bayti mootam. bayti nangam ak nangam yooyu yëpp ci laa waaw xam nga yooyu yëpp nag. Mm-hmm. maanaam dafa mat a xam. ndax ki nga xam ne si ne dafa war a taxaw ci machine. Mm-hmm. jàpp machine bi xool machine bi filgee fee la jëm filgee fee la jëm ak sëriñ noonu la mel. Mm-hmm. ndax nit ki dafay am jamono boo xam ne si ne biddiyoom ak rawxaanam. ak tabixaam dañuy bokk génn kër gu ne loolu su boobaa mbiram dafay yomba jënti waaye nag yooyu am na yoo xam si ne waxtu yoo xam dañ koy rawante ci biir rawante boobee seet moo la mën a lijjantil ba xam ne kii li nga ko war a defal fii ak fii ak fii nga ko war a jaar loolu nag moo tax bu nu ci àggee faw danga nga settantal mbirum nit ki ndax mit ki biddiwam dafay taxaw ci kërug deyam wala ilaa muy dox mu yàgg mu taxaw ci baytu kërug maalam nga xam moom am na alal ju koy dikkal waaye alal ja faaw mu def sarax mm. léeg-léeg mu taxaw ci biddiwu maanaam ci kër communication nga xam si ne bu dee mbir mu war a jot boo waxee tuuti rek mbiram mën naa lijjanti ko mm. léeg maanaam nga taxaw ci sa bëyt relation mm. sa jëflanteek koy jëflanteel ci wàllu liggéey wala koo xam si ne dafa laa war a jox xaalis mais dafay am sarax yoo xam si ne biddiw ba ak rawxaan ba ak tabixa ba dafa am sarax yu nuy laaj pour loola lijjantiku ko loola nag bu fekkente ne yow defoo sarax ba mën ngaa topp mbir ma da ca am yaakaar maanaam ba fa ngay mujjee ji rek mooy déception. yaakaar ju yaakaar ju tas. moo tax yooyu su ñëwee faw dangay seet càmbar mbirum nit ki. xam bayti maalam xam tabixaam xam ay mbiram fan nga war a mën a jaar ndax ñu baree baree baree bare fi mu toll nii seen rawxaan dafay ñëw ba ci seen bayti marit seen këru tawat mu tëdd fa. nga xam ne ñooy dund seen tawat jooju du mës a wér léegi nag loolu nag bu fekkente ne si biir këru tawat googu dafa fekk këru suuf. wala fekk biddu boo xam seen taxawaayam day taxawaayu suuf loola mooy tax tawat ja day yàgg te du te te pour mu wér dafay. waaw waaw waaw waaw waaw léegi nag buur nit ki xam-xam dafa am foo koy jaare mm-hmm. ndax doonte dangaa doon xam-xam. dafay am loo xam ne danga koy jàngi. jàng waaw waaw man mii de maa ngi am turu yàlla yu ma njëkk a jox yu ma njëkk am ci xam-xam. Mm. diggante fa ma ko doon jëlee ji maa ngi ko jëlee ci dëkk bu ñuy wax doxoobe di dëkkub alaaji Soose Njaay mm. ma fekk ma fekk fa alaaji Naar Njaay doomam moo ma jox tur yàlla. Mm-hmm. billaay wallaay wa ma nga tey ca géel yàlla. Mm. yàlla na ko yàlla xaari àjjana. keroog ba ma jógee Touba xam-xam rek ñor ma te sama waajur na ma lii fi nekk di ci waxanda yi ci gaal yi ak munoo cee jëriñu mukk te sonnoo keroog bi ma doxee diggante Daara Jolof ak Touba xam naa ne la ma sama waajur waxoon di dikk na faaw li dama ciy sonn. boobu nag ci laa walanteeru miraas sama bopp nag fas yéene doon am xam-xam fas yéene doon koo xam si daf may wóor ne xam-xam am naa ko waaye buur wat naa ko ci baaxu Serigne Touba. xam-xam moom am naa ko te ku ma jëflante ci àdduna nee nga ma alhamdulilah sant naa yàlla. mais sëñ bi waaw. na fépp fépp den am na ko jóge Hollande am na ko jóge Hollande am na ko am na am na ñoo xam si ne jóge nañ ba Jidda am na ñoo xam si ne jóge nañ ba Cameroun te loola la tax ma sant ci yàlla mooy maanaam teraanga la joo xam si ne sama waajur fa mu tëdd euh, tey jii ma ngi koy terloo ndax bu sañoon li mu fi bàyyi ginnaaw kenn du ko fooye tey fooyewuñ ko waaw tey nit ki da ngaa war a góorgóorlu ci xam-xam loo cay wax na doon lu wér mhm. loo cay def na doon lu wér mhm. looy jox nit ki ndax tey am na ñu bari ñoo xam si ne tey jii sangoon nañ ay cangaay yu bëree bëree bëree bëri te gis ñu dara te gis ñu dara waaye yow xanaa da xam xamoon ne rawaan mooy sa adversaire mhm. rawaan li nga yow li ngay bëgg bu ca rab toogee doo ko mas a am te sëñ dafa naqaree réglé ndax fi mu toll nii waaw xam nga dafa am dafa am ay rab yoo xam ne si ne daf lay daf lay dab hmm. am na rab yoo xam ne si ne seen ngelaw la ñuy sànni bàyyi ko ci yow saa la neexee dugg mi ngi mel ne hmm. maanaam tey jii euh, nu ma ko mën a expliquer maanaam comme sa sa su portaabul hmm. xam nga pochette moom saa boo bëggee portable dugg ci dana ci dugg dëkk ci rabit noonu la amee ay mbuusi ngelawam yoo xam si ne lu mu bëgg def ci yow rek mën naa dugg fenn rek sax fa. mais seen ngelawul rab dafa ko. ah ngelawul rab bari na sax ñu koy doxaale. aha kay aha kay aha kay rab dafay dugg nit même maanaam njëgteef ñi nga xam ne ay nitu guddi lan dañuy dugg nit ndax waaw ndax nitu guddi bu la soxlaa dëgg dëgg dëgg mën na laa fatt da waa nga fatt ñu ne di diw dee na daal di jang-jange yóbbu ci armee la suuli ñu ñoom ñoom ñu ñëw sulliwaat la jël lañuy jëfandikoo ci te kenn du gis na suuli nan la xam-xam la dégg nga nit ñu baree baree baree bare dafa problème bi nu am mooy bu nu weddi ab sëriñ ak sëriñ dafa am. te bu ñu weddi ñaan déedéet dafa am buur ndax ñun ñu koy jëfandikoo xam na ne ñaan yàlla am na. mais sëñ bi nit sax waaw xam ne fa la science a développé. waaw waaw ñu jege jegetee. waaw dugal ci avion. waaw. na ko ñaanal ko. waaw waaw sangat waaw waaw te jàngoro jëm la fajee. waaw sangat la. sangat la. médecin waaw xool nañ ko gis li ngay wax nii dama cee am ay kaa amati ci ay kaa hmm. nit toog na ca Tunisie daanu ay rab. ma ne ma ma ñu wax ma muy cadd cadd man leen jël leen ndox ngeen dëpp ko ci téléphone bi. Hmm. ma wax ay baat baat yooyu su communiqué ak ndox bi suñ ko sottee mu jóg. Hmm. nit nekk na ca Espagne. di daanu ay rab ba tëdd ci lalu hôpital saabu bu ñu defee analyse du ñu xam lim def man ma toog fii man di ko lijjanti te ci sarax rek laa ko teg. mais sëñ waa sarax mooy yëf yi waa sarax mooy yëf yi moo tax nit ku mënti doon damay wax ne boo toogee fukki fan ak juróom-ñaar di di maanaam di di di sept jours war ngaa fexe ba xam sa mbiri bopp lan moo ci ne ak lan nga war a sarxe soo demee bay dugg ci mbir war ngaa laaj mbir mii lan moo ci nekk ak lan laa war a sarxe. moo des it ñëw nee nañ nga jëflante seetal ko. waaw nga ñëw ci génneel nangam ndax nit ku nekk da nga am ñaari bis yoo xam ne si ne ci une semaine bi xalaa kuli àll na nga ko war di hmm. ndax da am biddiw taxawaay boo xam si ne moo si taxawaayu biddiw hmm. ndax suuf am na ngelaw am na sawara am na yooyu yëpp dañu am hmm. ndox am na bu nekk am na bis boo xam ne si ne moom la taxawee ndax bu fekkente ne ci wàllu ndox mooy ñi nga xam seen ñoo jàpp xamar seen mbir ci ndox la ñi jàpp euh, xutaarit seen mbir dafa bokk ci suuf ñi jàpp mariix seen mbir sawara la ñi jàpp euh, misaan seen mbir dafa jàpp ci xawaayu te yooyu itam nag tey ala kulli alin da ngay am pas-pasu xam sarax bii say mbir di dox ala kulli al sëñ bi lekk gum naa fukki minute ak ñàng te bëgguma jeexal émission bi te li ma indi ci njariñ tey teguma ko waaw sëñ bi Sénégal góor ñi dañu gën a am waaw buur. Mm-hmm. loolu dara xam nga feebar lan moo ko indi ñaar rek la feebaru góor ñaar rek la. Mm-hmm. benn rab téye la wala ndoxum siti téye la. te billaahi wallaahi wa taalaahi ndoxum siti du ma ci traité mukk nit bis ba bi sa des te woo ma ne sant naa yàlla. te li ma lay jox. même boo dee góor la sax da koy saw ci génn guddi ba mu jeex takk même bu la téye téye sa ngóor a maanaam ci génn guddi laa lay wax na la jëlal lii nga naan ko nga saw ko ci guddi gi ba mu jeex tàkk la leen li tes reen la yoo xam si ne da koy naan te boo ko naanee lépp da ko dem wanag ndoxu sit day jeex ci yow. waaw dégg ndoxu sit dafa dem dana dem ba nit ki. mu tëj butitu njurukaayam waaw dana dem ba indi la fibrome dana dem ba seere la nga xam ne yow maanaam dem wan ak dootoo ko man waaw am na ñoo xam si ne dañuy dem ba seen biir bi lay wal te sax moo yées moom waaw waaw gis nga gis gis nga ngelaw yooyu yi nekk sa biir bi dangay ngay dem ba mu jural la cancer mm-hmm. te lépp ndox siit moo ko waral mm-hmm. waaw mm-hmm. ndax dañaa ay topp si de ndox si waaye lépp benn dong la ndoxu siit dong la jàngoro kajoor ak yooyu yëpp ab maanaam daa dara maanaam ndox mu sit waaw mooy ndey feebar ndax maanaam dafa am lu koy joxe te nit ñu duñ ko bàyyi hmm. dafa am xeet lekk yoo xam si ne boo ko dee lekk kenn mu la tàqale ndoxu siti soo dee lekk jën ba pare jël gerte teg ci kenn mu la tàqale ndoxu siti hmm. boo dee naan soow ci waxtu guddi hmm. soo ko tëdd kenn mu la tàqale ak ndoxu siti te ndoxu siti lu ñuy traité la waaye nag nekku la da nga koy jëfandikoo benn bis mu dee waaye nag man xam naa garab yi ma yor ñaar rek la bii da xàmb di naan safut dara bii da ngay def def boo xàmbee ñetti fan ba mu wóor na nag jàngoro ji dajaloo na nga def ci kaas yëngal saw ko lépp mu jeex tàkk mm. waaw mm. loola moom képp ku mu mën a doon soo ma woowee ci ndoxu sit ma jox la traitement bu leer nañ ñi it maa ngi ci am ay résultat mais ak ngóor ah kay sa siddi di lay fas ndax yooyu ay xeeti ngelaw la yoo xam ne si ne bu xasee ba jàpp day jàpp ci ndigg ba mu jàgg mu jàpp ci biir léeg-léeg mu dem ba sa xëtër bi mu comparé ko ak moom léegi na loolu fi am na foo xam si ne bu demee ba ak sa naq bi siddit yi war a jóg moom lay jàpp loolu dafa bokk nag ak ak ak ak ni rab di jàppe man ko mu jàpp ba doom ji bu waaw am na ñoo xam si ne topp di daf leen di jàpp ba bu si buñ juree doom bu juddoo maanaam yaram wi lay jàpp mhm. maanaam def ko waa day mel na yaramu jaan mu mbëtt ni mu mel mhm. noonu lay mel te loola bu xasee ba dal doom ji ah a jël mu sama mu tëddee. yenn yi sa xale bi mën na juddu. mais mor jeex na waa du juddaale bakkan. Mm, mm. loolu lépp nag tey ji dafa am loo xam si ne moom ndoxum siti la dafa bokk nag ak rab. téye la ci wàllu ngoro boobu moom moo yées. waa mais sëñ rab dafa dangereux. wul ndànk ndax rab moom ngay takk jabar mu dëddal la ak jabar ji du la nangoo gis. Mm. rab ngay ngorowoo ak nit saa bu ngeen toogee xuloo bu ngeen yorante seen téléphone bii bu ngeen waxtaanee dina mante ko rab ngay ngay moo moo moo lay may nga takk jabar saa bu sa mand yu demee ci pëyum soxna si mhm. mu yàq ko doom du sosu mukk mhm. waaw rab mooy ki nga xam si ne maam tey jii da ngay am sa liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. rab tëj la te rab nag ni mu def li tax mu garaaw mooy bu la tëjee ba pare yow doo sangooloo gis ndax dafa am xeetu rawaan yoo xam si ne dañuy jël baas muur la ko nga xam ne yow li ngay jëfandikoo ci saafara lu mu baax baax du agsi si yow. wa ilaa nga jël cangaay li. càng gis mbaax indisposé loolu mu ñu bëree bëri lay dal. Uh-huh. waaye loola dafa am bu fekkente ne gis da dal na nit ki wala bu fekkente man ñi ma xam te ma wóor ma ne su ma leen ko joxee duñ ko jëfandikoo dafa am garab yu ma leen di faje nga xam ne sunguf la. Mm-hmm. garab yooyu moom bu buñ ko laalee rek dafa am lu may soppati seen biddiw am beneen taxawin boo xam seen dama koy taxawal su boobaa nag mbir dafay jubbantiku sëñ bi. waaw <laughs> waaw. xam li waaw waaw waaw a. bi dellu si ci ñëw naa Mbour moom incha fan yii dinaa fa nekk. waaye li ko waraloon mooy dafa am gan ñoo xam ne gan gu ne ak fan koy dalal. Mm-hmm. te dama dul bëgg gan ak moroom ja di fekkante. di xam nga ñii ñeent lañu woon. Mm-hmm. bi ñëwee dama leen denc ci bërëb lijjanti leen ba seen biir sotti kenn ka it yaakaar naa la ma ca gën a neex mooy doomam jëm andi loon bu jëm indi woon xam ne da koo jële fii Sénégal doon ko lijjanti ay kayit laata muy dem la ko suñu borom defal tawfeex mu mën a jot kër yooyu mm-hmm. te loolu lépp ñaan yàlla rek moo ko waral mm-hmm. kon mbir mi du lu ñuy làmbatu ñun nag sant na yàlla bu baax a baax di ñaan it dëkk bi ak réew mi jàmm sax fi ci daraje Sëriñ Tuubaa mm-hmm. di ñaan it kilifa yi nga xam ne si ne ñoo samp ñoo ñoo seq uh, kii bi mm. yàlla bu réew mi yàlla bu jax-jaxi seytaane dugg ci seen i xol waaw ah kay damay wax damay wax damay damay damay waaw waaw waaw waaw xam nga man nit damay romb nii dong yor yor feebar mm. mu wóor ma ne feebar bi da ciy dee mm. dama koy xëcc ba mu ñëw ma ne ko nag bul tiit dama nga sarxe nangam boo ko saraxee yàlla mën naa soppar ñi waaw day jañ day ñotti hmm. te it buur buñ ndam mukk ci li nga xam ne moom lañ yor nañ hmm. gëm ne yàlla moo nu ko jox hmm. yàlla itam mooy ki nga xam ne si ne ku mu jox nga am waaye ku mu xañit nga ñàkk ñun xam-xam bii yóbbuwunu fenn yàlla moo dogal ñu doon ay ñaankat doon doomi ñaankat waaye mm. tiitaroo wuñ ko mbubboo wuñ ko bàkkoo wuñ ko it tiitaroo wuñ ko bàkkoo wuñ ko waaw jërëjëf jërëjëf <laughs> waaw <laughs> bésub Serigne gis nañ jërëjëf euh, mbokk taal bi yëpp waaw ñëpp dégg waaw wallaay waaw sa ci say ginnaaw kilifa dëgg la ndax am solo wallaay ko amee waaw di nga wéeru te ku wallaay wallaay wallaay ziar waa Ngale xuma gépp jaaw ndeysaan ziar tund yëpp tund yëpp waaw Kajoor ak yëpp Mbàkke Kajoor ak ñëpp waaw yàlla yóbbuwaat fa dem sax dund ko waaw danañ fa dem fanaan fa incha allah ba bërset incha allah sëriñ bi yeewi kontaan nañu baax wasalaatu wasalaam ala rasulillah jërë ngeen jëf mbokk yi